dama leen di wax de ci kanamu micro seen mbooloo te bu neen dem cees nu ngeen dem fu leen neex nit du dox ci kaw suuf ba gis ni ku ku ne Thierno Sall war na ma munul nekk <laughs> naa juum naa juum naa dafay erreur naa fàtte waaye war bokkuma ci laaj ay candidate pour nax la laaj ay kii pour nax la dig la dara defuma ko wax dara nekkut te ma tey ko loolu kenn du gis ci kaw suuf koo xam ne dina ne damawuma nag bàkkuwuma loolu mooy suma jikko loolu rek laa laay de laay dese laa dese damay wax aw ma alal aw ma leneen waaye am naa kàddu sama kàddu c'est de l'import c'est plus important que de l'argent et que